yaa ngi merci donc aux chers amis internautes téléspectateurs qui nous sur la TMS TV euh, nous sommes euh, fii à l'unité 13 école Djinda alors tey euh, ay soppe ay xarit ay àndandoo jox joxante fi rendez-vous bi lan la euh, monsieur Mamadou War sur la sens et la signification vraiment de ce geste bi ngay def ni tey à l'endroit de la communauté chrétienne. jërëjëf euh, doyen Aziz euh, gërëm la sant ci euh, ci sa teewaay fii tey di gërëm di sant aussi samay àndandoo sumay xarit nga xam ne aussi ñoom fekkee nañu fekkee nañu bés bi di gërëm aussi di beral nuyoo aussi Abdou Guèye boo xam ne moom suma sama xarit la lu yàgg sama genn wàll sama jumeau Euh, sens bi euh, daanaka wax nga ko ba noppi maanaam da nga wax ni xam nga ren yàlla dafa dogal euh, carême bi ak ak ramadan ñu ñu ànd daanaka donc ci loolu comme ñun chaque année dañ doon jàppale vraiment la communauté musulmane ci ramadan ren yàlla def aussi comme dañu fa dajee ñu fas yéene aussi taxaw loo xam ne du benn euh, c'est pas la première fois donc euh, jàng bi muy église bi tey nag ñu euh, war a dem foofu nag pour yóbbu leen suñu suñu participation ci loo xam ne ni daanaka pàcc yegg si na ba noppi li ci des mooy suba muy ajuma samedi dimanche muy muy donc loolu nag laa fas yéene pour tey daal mu dem parce que temps ngalax nga xam ne nii moom mais limal ñu limal ñu <laughs> li nga leen di yóbbu. waaw waaw lu ma leen di yóbbu euh, cinq cent kilos de sucre la cinq cent kilos de sucre la ak euh, deux cent kilos euh, de de de mil no cinq cent kilos de sucre trois trois cent kilos de mil ak trois cent kilos de ñuy wax mooy pâte d'arachide maanaam mooy tigga dege waaw loolu loolu daanaka mooy maanaam daal loo xam ne waaw ngalax bi daal euh, euh, pour ngalax la daal waaw pour ngalax la te te loo donc loolu laay loolu laay loolu laa facilité tey yóbbu ko mooy donc comme je disais euh, cinq cent kilos de sucre ak trois cent kilos de de mil ak trois cent kilos donc de de pâte d'arachide waaw mais en même temps aussi di souligner que di di gërëm bu baax aussi ñoo xam ne dañ fi teew te ñoom tamit ñu bokk ci jàngu bi ñoom samay xarit lañu waaw ah, ñu mel ni euh, ñoom Émilie ñoom Barthélémy Sarr euh, doomam teew na fi ñoom Yvonne ñoom ñëpp teew nañu waaw waaw donc euh, loolu aussi participation boo xam ne man sama wàllu bopp la koy defal ñoom spécialement waaw parce que lii su ma ko yóbbee ba loolu pour jàppale église bi la mais ñoom aussi dama leen beral boo xam ne na leen jàppale ñoom tamit waaw c'est ça waaw jox leen ñoom seen participation la présence ne nous surprend pas parce que xam nañ diggante ak Mamoudou d'ailleurs Mamadou tout à l'heure dégg ngeen ko mu ne suma jumeau jumeau nag mooy seex muy kan l'ambassadeur de la paix celui-là qu'on voit dans les grands événements en train de prêcher la bonne parole alaaji Abdou Guèye tey ñu nekk ci weeru koor wax nañ ko léegi mu coïncider ak ñoom aussi ñu nekk ci seen ci seen woor euh, mais surtout tey buñ gisee doomu jullit du Wane tey waa jàngu mu ne daf leen di yóbbul tey pour jàppale leen ci weer ko tey dafa mel ni tey Mamour dafa indiwaat li ñuy wax dialogue islamo-chrétien tey daf koy dëggal tey tey lan mooy sa yëg-yëg ci bis bu mag bi. Moulay euh, euh, ñu ngi lay nuyu. di euh, yàlla. di la baloo àq. di ñaan yàlla yàlla bu ne sunu mujj koor. di féliciter notre jumeau notre frère Mamadou. Mamadou di am solo. mooy lii ci vérité la nekk bu fekkoon ni ñi yàlla may teraanga ci senegal ku ci nekk yaa ngi def lii maanaam euh, fakiir bu jeexul it dina wàññeeku euh, parce que bu fekkoon saa boo amee euh, benn saaku ceeb jël ci benn dix kilo jox ko koo dendal boo ko jël cinq jox ko bu dendal réew mi dina mën a naat maanaam dina law mais bëri na ñoo xam ne tey yàlla may nañ leen mat mais joxe ci xol lay ne Cheikh Hadj daan wax ne bu fekkoon ne joxe dafay tax ku wattu dootoo dootoo bu fekkoon joxe dafay tax a ñàkk. waatulootoo sax ca Mamadou yàlla moo ko mooñaale lii ca Sénégal damay faral di dégg benn nit mu ni kuy lekk ngalax war a joxe yàpp tabaski ca boo dee seet jullit yi ñoo dax a lekk ngalax frigo jullit boo ci ubbi pak day fees del ak ngalax ca li koy indi ñoom ñoo nu koy jox ñu nekkit ay nit ñoo xam ñu neex a dëkkal ay nit ñu jàmm lan chrétiens yi ay nit ñu jàmm lan bu fekkoon ne ñoom la rek doo dégg benn bruit Sénégal parce que lu ñëw dañuy ànd ak ak yar ànd ak teggi da nga koy seet ci seeni ba ñuy dem seeni i funérailles bu ñuy denc dangay xool ni ñuy demee doo dégg benn bruit bu ñu ñëwee di jaalee da ngay gis ordre da ngay gis ñu rang doo xam ki jiitu doo xam ki mag lépp ordre lañ koy teg kon Mamadou li mu def du guléet parce que fii miin na ko et li ma gën a neex ci gest bi muy def mooy di jël mbir di ko delloo ca mbañukaay maanaam ni am alal ñu bëri li leen réeral mooy sunu dee seen néew bu dee jëm dëkk ba leen di yóbbu dëkk ba day siisu sunu sonnee bu nu dee dem dëkk ba day siisu sunu ñàkkee bu ñuy dem dëkk ba day siisu sunu feebaree dëkk ba day dem day siisu mais moom dëkk bi jëpp yu parce que fi baayam amee woon ay ndayam amee fi ay maamam amee fi fi lay delloo affaire fii min na Mamadou ci suukar min na ko ci dëgg-dëgg miin na ko ci nagu tam xarit min na ko ci xaru tabaski min na ko ci jël ay enveloppe di ko jox ay jaam am na genn góor ma cité ko rek de passage euh, euh, sunu baay alxaaji Omar Ndiaye yàlla ko yàlla jéggal baay bi mu feebaree dafa wax bi mu nekkee hôpital soo leen bëggee ma wér bu ma kenn indil benn lekk bu jógal kon maamu na Mamadou di togg këram di ma indil korob bi muy def loolu Mamadou korob bi góor gi génnee àdduna je me rappelle boobu Moussa moo fi nekk maire mais bi mu ñëwee njabootu omo rek ñëpp danoo jël dëj bi ni ko yow yaa ñàkk Baye sa Baye moo dem te loolu du moom rek de parcelle yëpp d'accord le président des délégués des quartiers le président des sages le président des bajjanu chrétien yi café ba ci café yi café yii xale yi def ci quartier yi Mamour da ngay ànd ak moom muy joxe café ba ndogu fekk ci àll di joxe suukar ba ndogu fekk ko ci àll bi ma ko bi ñu demee kër sëñ Abdou Al Amin sëñ Moustapha wax ko ni ko sama baay moo toog wax ni ñun ku nekk ak ku la neex faral mais ñun Mamour yow yaay yow yaay suñu star ñun yow lañ faral ca faralul la pour politique mais dañ la faral parce que sa xol moo yaatu kon li mu def nii rëy na rëy goo xam ni parce que ca nag ëllëg dafa garaaw dafa mën a bàyyi xel xam nga nit ñi dañ foog ne aljana jullit yee ko aljana yàlla bàyyi ko fi jullit yee de yàlla ku baax la xam yóbbu ko aljana ca kan mooy ku baax mooy kii dimbali nit Mamadou fan yi defaat na beneen geste Abdoulaye mooy ànd nañ ba fii tomb papaam fi ñu denc papaam mu bale tomb bi ba mu set jënd àndu cuuraay teg fa jël cuuraay teg fa woo benn xale ci armeel yoo fi ni ko xam nga mun ko dee mun ko semaine bu dee defaral fii ma jox la ci man koy waxuma la sax defar ko waaye danaa fi toog semaine daaw ba mu judd boobu xale bi bi mu ko balee ba mu set ñuy génn xale bi woo ko téléphone ne ko dama bëgg nga xam fan laa dëkk ak kan nga mën a booleel lii su ma ko dee am sama kër la ñu am dépasse ku am yéen ma ngi nii moo tax man lu ma xewle man dama ci sonn parce que man sama xarit la sama frère la ca liñ ko téye yëpp mooy nit ñi nan ubbi seen bët yi lii la lii la ñi ñu soxla kii bu nekkoon président wala mu nekk tey député wala mu nekk tey maire mu nekk tey un ministre mais parcelle duñ cooy mais nit ñi malheureusement dañuy jaawle lu bokkul kii moom mooy kii ñu war a jàppale mooy ki war a am di bokk ak jaami yàlla yi benn bi fa joxe mu la am doy yaayam moo toog barki dem fii ma toog ma sëgg di wax ak moom ci bésu dëju euh, séeram bi yaayam ni ko bu la àdduna yëpp bàyyi woon embargo la yàlla du la bay yàlla yaayam nee na ko ba korok ngay dugg biir bàmmeel yàlla na yeex téeméeri at doo ñàkk doo am problème doo gàttu fan doo sonn ca loo dugg mu neex bis boo dugg mu dàq ba nga yaay ma ko wax loolu kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko yàgg man di félicité sunu mbokk chrétien yi ak sunu mbokk musulman yi yàlla am na lu mu namm ndax bu dee ba koor gi nekk benn ñii di woor fii ñii di woor fii di ndogu 19 heures di ndogu 20 heures bu ñu ci jógee nan rafetal ca xam ne yàlla lépp benn la ci moom ngeen baal ñu asalaamaaleykum wa merci donc euh, dégg ngeen ko dégg ngeen ko dégg ngeen ko léegi alors euh, le témoignage de celui-là qui le connaît très bien parce que qu'ils ont fait toutes leurs humanités ensemble wax na ko aussi au passage Et pourtant, Mamoudou est endeuillé avec la disparition de sa sœur, Absa Yayawan. Nous a quittés, ça ne fait pas une semaine. Et pourtant, empêché que malgré les nombreux charges, cérémonie de famille, il a tenu en tout cas à honorer encore une fois de plus ses engagements par rapport à la communauté chrétienne, mais surtout encore mois de Ramadan et de ce mois de Carême. Voilà Mahmoud Et tout à l'heure, nous prendrons d'autres témoignages, le temps de procéder à la remise symbolique quand même de ces dons, de ces denrées. Ensuite, direction là-bas du côté de l'église Marie Immaculée. À tout à l'heure sur votre chaîne de télévision. merci beaucoup merci beaucoup yal na yàlla barkeel lépp lu muy bëgg yàlla na doon li gën ci moom te yàlla na ko yàlla may li nga xam ne yàlla nañ ko séntu daal maanaam comme lu raw njortam daal vraiment merci beaucoup. voilà yal na yàlla barkeel leen barkeel njaboot bi sa liggéey. voilà. merci beaucoup. dégg nga ah dugg na kay téye. merci ah, merci beaucoup. jërëjëf dugg leet nag dugg leet. ñu ngi lay gërëm di la sant dina ñaanal yàlla. li ngay yootu yëpp yàlla defal la ko. Ah, te mu doon sa njiglaay. ah doon njiglaayu Parcelles Assainies bi yëpp. jërëjëf merci. merci. voilà deuxième. waaw nga ah dégg nga lax de. waaw kay jërëjëf ceeb bu baax. waaw kay merci beaucoup merci. c'est bon ok. merci monsieur le maire. c'est bon.